bismillahi rahmaani ngi ci garabug tuuba ci xaaju juróom benneel bi sëriñ tuuba xaadaloxoo laahu maxtaraloxoo nee na ku soxlawoo ndigal yi ak teral képp moo koy dikkal kuy soxlawoo tere yi mbugal rek moo koy dikkal loolu mi ngi ci xatu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy cent quatre vingt damay sikk ndax xarab bi bind wala dañu ko soppi ci xarab wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laahu maxtaar nee na maa ngi leen di dénk laa biir dale ko ci képp ku gis lii bàyyi leen jaw dee leen ko moytu te daw xayi bi tey bañ a tudd xayi bi kenn bu leen lor kenn ci seen làmmiñ ak seeni loxo bu leen seytaane woowee bu leen ko wuyu ndax ci lu leen di jëmale sawara ak gàcce rek la leen di wooyo bu ngeen bëggee xam woote seytaane da ngeen di settantal bala ngeen a dem ci mbir da di settantal bala ngeen a jëm ci mbir lépp lu toq ci seeni xel te génnul imaan islaam insaan woote yàlla la subhanahu wa taala lépp lu génn ñetti yii woote saytaane la yal nañu ci yàlla musal bu leen lekk lu xaraam ak lu lënt ku lekk lu haram du mën a def lu dul lu xaraam dee leen doyloo xamu yàlla subhanahu wa taala bu ngeen bëggee werante wala biijoo képp kuy waranteeg yéen bu fekkee yéen nekk ci ak dëgg bu leen ko tont bu fekkee yéen nekkul ci ak dëgg tuub leen kon sunu boroom dana leen jéggal suturaal seen hawra dee leen def lu baax ndax nga loolu mi ngi ci xatu ñaar téeméer ci diwaani jasaw sakkoor walaaw alam sëriñ bi xaada loxo laaw maxtaara loxo bi mu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonte bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama lii la wax li tax ma def téere bi tudde ko mañ maun mañ ma ma un nooray ni fii fawaidi daare ni fi leere adduna daje ak yu ëllëg ak seeni njariñ damaa gis nit ñi bëgg ak jaamu lool téréer lool tàyyel lool mel ni man maa ngi ñaan sunu boroom mu def ko muy téere buy sabab sunu mucc ëllëg ci mbugal te may nu ndimbal moom mi am kàttan ak pexe lii njariñ la gëm dogal bi ñetti xaaj la bu njëkk bi mooy nga gëm ni lu am ak fu mu mën a ame yàlla subhanahu xam na ko te moom la neex mu door a am wuuteeg alxadariyatu ñi nga xam dañuy wax ni dogal yi ginnaaw bi ñu amee la leen seen boroom doora a xame noona ñooñu ay yéefar yu wër lañu ñoom laata imaam Shaafi radiyallahu taala anhu di génn àdduna jeex nañu takk lu mat juróom ñaar fukki yonente rëbbu na leen yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa bu ñu tawatee bu leen kenn seeti bu ñu faatoo bu fa kenn teew ñaareel ba mooy gëm bu wér ni sunu boroom moo bind nit ñi ak seeni jëf wuuteeg muxtasili yiy wax ni sunu boroom moo bind bind jaam bi waaye jaam bi mooy bind jëfi boppam ñooñu sunu kéefar am na ak wuute waaye alxuraan weddina seeni pas-pas ci ay bërëb yu bari mel ni wallahu xalaxakum wa ma taamaluun ak wallahu xalaxa kulla shay'in ak yeneen bërëb ñetteel ba moo di nga xam ni yiw ak ay ñaari mbindeefi yàlla lañu subhanahu wa taala wuuteeg almanawiyatu maam almaani fenkat boobu di wax ni lëndëm moo bind ay alxuraan weddi na ko ba mu ne wa jaxala zulumaati wa nuur su defee ñett yooyu ku leen noonu ab jullit la ku leen gëmewul noonu ab yeefar la lii njariñ la ahlu sunnati ñoom noonu ma waxal la gëme dogal bi dogal bi nag am na ñeenti xeet bu njëkk bi mooy dogal bi ñuy tudde xamuk sunu boroom boobu mooy dogal bi jiitu ci lépp looloo tax ñu naan wilayetu ko goo gis ak jagle moo ko jiitu sunu boroom nee na yoo fa ko anhu manu ufika ci max naa alxuraan ku ko gëmul ci aduna fekk na sunu borom dogal bu yàgg ak ñak gëmam yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa sallam neena ku faatu ku nek fekk na yàlla subhanahu wa taala xam ak faatoom ñaare bi moy dogal bi yàlla subhanahu wa taala dogal bind ko ca lawhul mahfuz boba man na soppi ko ndax yamxu llahu ma yashaa'u wa yuthbit wa indahu umul kitab abdullah ibnu omar radiallahu taala daana wax buy ñaan sunu boroom boo ma bindee may ko texee di yal na nga ko far te bind ma may ko texe ñetteel bi mooy dogal bi ñuy dogal nit ki bu nekkee ci biirum ndeyam ndax malaaka mi dañu koy digal mu bind wërsëgam akub digam akuk texee deem akuk texeem ñeenteel bi mooy dogal bi nga xam ni moom lañuy ñuy tudde indi dogal yi ci seeni waxtu ndax sunu borom subhanahu wa bind na lépp ba noppi waaye lu ci nekk da ko wutal waxtu saa su waxtu see mu indi ko noonu la ñëwee ci al ibris bu yoddaaliyu radiallahu taala anhu lii njariñ la nee nañu yowmal xiyaamati am na téeméeri junni tiit tiit mu nekk moo gën a metti mettitu dee ku bëgg sunu borom musal la ca del wax baat yi suba ngoon ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل ضيق حسبي الله ولكل بلاء استعنت بالله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل شدة ورخاء الشكر لله ولكل نعمة الحمد لله ولكل خضاء وقدر توكلت على الله ولكل سنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لي نجارين لا كو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسلم نوخ لي غوديك الجمعة بوي تد اللهم إني أسألك بقوة الربوبية وحسمة السمدانية وصلوة الألوهية وحسة الجبروتية وخدم الفردانية وقدرة الأزلية أن تصلي وأن تسلم على سيدنا محمد وآله وأن تريني وجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لي نجرين له كو أم لو رجل جانجل لي في قريش جروم ياريون أغنان جي اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك fa bi annika min kulli shay'in wa khawfi kulli shay'in minka ammini mima akhafu innaka ala kulli shay'in khadir ku ko def dana am koolute ci lépp li njariñ la guddik fukki fan ak juróom ci baraxlu deef na ca jàng ñetti yaasin ci ñetti yéene bu njëkk bi boo koy jàng da nga ci yéene gudd fan bu ñaareel ba am lu la doy ba doo soxlaal mindee fi bu ñetteel bi nga yéene ci jañ balaa yi بونو بي جانغ نيان اللهم يا سلمان ولا يمن عليه ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجلد المستجيرين ومأمن الخائفين أسألك إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما أو مقترا علي في الرزق الطمح بفضلك شقاوتي وحرماني وإقطار رزقي وأثبتني في أم الكتاب سعيدا مرزوخا موفقا للخيرات فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لينجر الله la باتل bëgg نياري ويجرم ginnaaw bu ñu faatoo dangay ngay julli ñaari rakka guddik alxamis rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon kursiyu ak lexlaasi ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk juróom yoon boo neppee jéggalu yàlla subhanahu wa taala fukki yoon ak juróom julli ci bi sallallahu taala alayhi yoon ak juróom ko haddiye sa ñaari way jur lii ku ko def mel na ni ku topp ñaari way juróom namu leen war a toppee lii njariñ la ku julli ñaari rakkaa ci guddik ajjuma bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak iza zulsilati fukki yoon ak juróom sunu boroom dana ko musal ci tancuk bàmmeel ak xatam te mel ni ku wàcc fukki kaamil ak juróom lii njariñ la yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mas naa wax sayyiduna aliyu karramallahu wajhahu ni ko bu ab seet duggee ci sam néeg nanga nga summi ay dàllam raxas ay tànkam wisko ci ponkis néeg bi boo ko defee sunu borom fa wacce jurom ñaari fukki yermane ab seet war nañu koy tere ci ay bisam gu njëkk muy naan soow mu wex ak binégar tey baña lek pom ndax dañuy tere am doom maa ngi lay digal nga teg sa loxo ca kaw boppam jang ayatul kursi ak yaasin lu ci ne benn yoon ak xulu wallahu ahad ñetti yoon wax li. allahumma anta rabbi wa rabbuha wa fiq bayni wa baynaha innaka ala kulli shay'in qadir وارزقني منها رزقا واسعا إنك على كل شيء قدير وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bul booloo moom mukk te waxoo bismillahi rahmaan rahim boo ko deful seytaane day ànd ak yow ci sa alal ak say doom bul xool am payam ndax day waral boo ca amee doom mu gumba bul waxtaan ak moom ci biir booloo gi day waral boo ci amee doom du mën a wax bul booloog moom ci ñeenti tànk loolu jëfi mbaam la lii njariñ la jigéen guy matu boo ko bindalee ci ay ci am ndab isa sama un shaqat ba ca wa alxat ma fiha wa taxallat ak isa sulsilati ba mu jeex ak lii muy waladat xattu maryam wa waladat maryamu isa uxruj yaa waladu adxu ko yaa waladu def ca ndox wis ko ca biiram dana daal di am doom li njariñ la lu aju ci fatiha sunu borom neena wala xada aataynaaka sabham min al masani al masani nak moy fatiha li tax mu tudde ko fatiha modi di koy jang ci ak julli ay yoon fatiha jurom ñaari laaya la bu ci nekk di tej ab bunt ci buntu shawara yi. hawiya jahim sair saqar hutama lawa jahannam jahannama moy sawara si si nga xam ni borom bàkkaar yu mag yi tuubul ci jullit yi ñoo fay dugg ba keroog ñuy set ba tey faatiye juróom ñaari aaya la yoo xam ni ñeent day tagg yàlla subhanahu wa taala ñett yi di ñaan ndax alhamdulillahi rabbil alamin mooy tagg gu mat gi nga xam ni ku dul yàlla subhanahu wa taala yeyoowu ko moom mi nga xam ni moomoom moom lépp bind lépp di wërsëgal lépp di yéwénal lépp tey ak ëllëg ci ak baaxam arrahmaani mooy ki nga xam ni mooy yërëm ñëpp ci adduna jullit bi ak yéefar bi loolu moom moo ko jagoo kenn fekku ko ci arrahimi mooy ki nga xam ni mooy yërëm jullit ñi ëllëg maliki yawmi diini bis bi nga xam ni lu dul diine du fa jariñ te mooy alaxira iyyaka na'budu na iyyaka nasta'in yow la ñuy ñaan nga may nu kattan ci jaamu la te musal ñu ci moy la ihdina siraatal mustaqim yal na nga taw feexal ci yoonu njub te moo di yoonu xam ak jëfe yoon yi daa bari lool waaye ku aw ci yoonu njub danga nga taseeg sunu borom ci xol bu sedd ak mucc ku ko deful xalku ndax wépp yoon wudul yoonu njub am na saytaane su fa nekk suy laate ñaari yoon ñoo am yoon wii ci adduna ak wa nekk ba ëllëg képp ku aw ci yoon wii ci adduna bo ëllëgee nga mucc ca woowee te moo di siraat siraat allazina an'amta te moo di yoonu yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ak waliyu ridwanullahi taala alayhim xayril maxdoobi alayhim waxuma yoonu ñi yàlla subhanahu wa mere te ñoo di yahud ak nasraan yi wala daalin wala ñi nga xam ni dañoo réer yoonu njub te mooy ñi mel ni almuxtasila yi ak xadariya ak jabriya ba tey fatiha xaraf yépp ñi ngi ci ba mu des juróom ñaari xaraf yu ñu yu tomb muy jiim alxaa ak za ak ta ak ra ak fa ak shin li tax bokkuñu ci dañoo wàcc ci ak tëkku ndax jiim mi ngi jóge ci aljusuwu te mooy sukk ci sawara ci ay bëti woom sunu boroom nee na wa nasaru zalimina fiha jusiya te képp ku mokkal fatiya ak maanaam doo sukk ci sawara alxaawu mi ngi jóge ci alxaybatu te mooy sooy sunu borom neena wa waxad xaaba man dasaaha te ku mokkal fatiha ak i maanaam du sooy ëllëg azaayu mi ngi jóge ci zalsalatul xal bi te mooy baj-baji xol sunu borom neena wa zul zulsiloo zilsaalan shadida te ku mokkal fatiha ak i maanaam du am baj-baji xol ëllëg azaayu mi ngi jóge ci as subur te mooy mbugal sunu borom neena na laata doxal yawma suburan subooram waaxidan suburan subooran kasira te ku mokkal fatiha ak manam du gis mbugal ëllëg arraau mi ngi jóge ci zulmu. te mooy tooñ sunu borom nee na wala tazidi zalimina illa tabara te ku mokkal fatiha ak manam du gis loolu ëllëg alfaau mi ngi jóge ci alxawdu fi xusraan te mooy perte sunu borom nee na innal insana lafi xusrin te ku mokkal fatiha ak manam du gis ak perte ëllëg ashinu mi ngi jóge ci shararu naari te mooy ferñeenti sawara sunu borom nee na tarmi bi shararin kal xasri te ku mokkal fatiha ak i maxanaam du gis ferñeenti sawara lii njariñ la imaamu Shaafi'i yu taala anu bi mu faatoo am na ku gént di ko laaj nan la sunu borom def ak yow mu ni ko jéggal na ma ci sababu julli gii ma daan julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi julli gi mi ngi اللهم صل على محمد بحدد من صلى عليه وصل على محمد بحدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه ba tey yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama am baax daan saxal mo xam julli la wala koor ba mujj nga màggat wala nga tawat wala nga tukki ba defoo ko du tee ñu lay bindal tuyaaba ja lii njariñ la aaya bi muy wala walaatamu dana ay nayka ila ma matana bihi aswajan minhum zahrata alhayati dunya linaftinahum fi wa risqu rabbika khayrun wa abqa وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ku ñuy wax xakim nee na ku ko bind takk ko boo amul soxna danga ko daa di am da nga am soxna boo bëree looy fàtte doo too fàtte boo tawatee da nga boo ñàkkee da nga womal lii njariñ la kaaraangel maris mooy weeru mars mi ngi nii da ngay jàng bismillahi rahmaani rahim téeméeri yoon ak subhanallahi alazim bismillahi allati la yaduru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim téeméeri yoon la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim téeméeri yoon ak fatiha juróom ñaari yoon inna ansalnahu ñaar fukki yoon ak benn ak allahuma salli ala muhammadin nabi lumi téeméeri yoon ak subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نينتيون لي نجارين لا كارانجل أب أمو ميني بو أمو أمي نتوير لنجي وقت عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن سبيل عبد الله بن السلام عبد الله بن سيد عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه تفلجا bu doom ja juddoo góor lay doon te dana doon borom xam-xam te saydaane te saytaane du ko laal insha allahu taala cheikh sidiya mu mag ma nee na ab ëmb bu amee ñaari weer wala lu ko tuuti nga bind lii muy ah sonat farjaha fa nafaxna fiha min ruuxina wa jaalnaha wabnaha ayatan lil alamin inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum faabudun wa taqatta'u amrahum baynahum kullun ilayna raji'un takal ko jigen ga lu tolok ñeen fukki guddi bu dom je juddo ñu takal ko ko lolu dana wattu ambuba dana wattu dom ja ku ambu kuko binde li mu takko ambu badu yaqku wala biso fi fi kahfihim thalatha mi'ati sinin thalatha mi'ati sinin sinina wasdadu wa tis qulillahu a'lamu bima labiso lo ghaibu samawati wal ardh ba tey shadidu ku ko bind ci xaatim bii takkal ko jigéen gu ëmb ëmb ba du yàqu bu soobee yàlla subhanahu wa taala dootu yàqu mi ngi nii mooy ba ñeenti kër nga koy def def shadidu siin def fii deel def yaa defaat deel booy ñëwaat ci kër gu njëkk nga njëkkee deel teg ci yaa teg ci deel teg ci siin su tooy ñetteel gi nga njëkkee yaa teg ci deel teg ci siin su tooy teg ci deel kër gi ci suuf nga njëkke deel teg ci siin si tooy teg ci deel teg ci yaa kon ñeenti kër lay doon saddi du saddi du arafu siin ngay njëkke ba ci ñaareel ba deel ngay njëkke ko ñaa ba yaa ngay njëkke koñum ñeenteel bi yaa ngay njëkke deel ngay njëkke muy saddi ba tey ku bind sóoratu yusuf wenn xaraf faru ca takkal ko jigéen ju ëmb dana am doom ju góor ju rafet te yàlla subhanahu wa taala dana ko musal ci lépp lu mu ragal boroom arrawdul yaanix nee na ku bëgg doom ju góor boo booloog sa soxna ba noppi nanga ko digal mu tëdde wetug ndey jooram ku bëgg doom ju góor bu sa soxna ambee na nga tudde ëmbu ba muhammad sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam li jàppandal matu ibnu abbas radiallahu taala anhu nee na yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na jigéen ju toll ci matu te mu jafe nañu ko bindal lii كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لقد كان في خصصهم عبرة لولا الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ci ab ndab def ca ndox mu naan ca la ca des ñu wis ca biiram ak payam ba tey nee na Isa alayhi salaam mas naa romb aw nag wuy am jafe mu ni ko yow yonante yàlla bi doo ma ñaanal doo ma ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu génn ma ci lii ma nekk mu daal wax lii moom xiisa dani yaa xaaliqa nafsi min wa yaa muxrija nafsi min an nafsi wa yaa muxallisa nafsi min an nafsi xallisha doom ja daal di juddu fa sansa mu daal di koy ndokkeel ibnu abbas nag radiallahu taala anu nee na jigéen joo xam ni génnu doomam daa jafe nañu ko bindal baat yooyu yi lii ak mottali la ku am doom sunn la nga wax lii boo koy tudd allahuma laka alhamdu ma aatayta wa awla wa asdayta allahuma sidna wala tanxusna wa akrimna wala tuhinna wa asirna wala toosir alayna wa bismika alkaafi ikfina allahuma ijcalhu barran taqiyan wala tajcalhu fajiran shaqiyan daa noddu ca nopp ndey joor joor liqaam ca càmmooñ ba teg sa loxo ca naqatal ba wax yaa barru juróom ñaari yoon ak bismillahi urxika arxika min kulli daa in bismillahi arxika min kulli daa in wallahu yashfika wa yunjika wa yajhalul barakata fika abatakallahu nabatan hasana muslaayul gone yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallama muslay gi la daan tifli hasan ak huseynu radiallahu taala anhuma uhizukuma bi kalimatillahi taama min kulli shaytanin wahaama wa min kulli laama neena na alayhi salam moom la daan tafli ismail ak ishaqa neena ñu raqibu ku ko wax juróom ñaari yoon ci mbir mu mu mën doon moo xam alalam wala ak njabootam yàlla subhanahu wa taala dana ko ca defal kóolute ku jàng yaa barru juróom ñaari yoon ci bopp gone dénk ko yàlla subhanahu wa taala dara du ko lor ba ba muy nekk mag bu doonee mag di ko jàngal boppam melaw siyaare bàmmeel ak ñaanal ko faatu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi nee na nit ki bu faatoo dana woote junni woote naan yéen sama doom yi yéen sama mbokk yi yéen sama xarit yi sarax leen ma doonte benn tibb la walla wenn sagar walla genn ñaan ndax yàlla yërëm ma ci nun dong ci pax mu xóot te xat diglu leen li may wax bala ngeen a ñëw fii loolu ngeen yor yoroon nanu ko sàggane ko ba ñëw fii jëriñuñu dara alyaddaaliyu radiallahu taala anu nee na ci xaatimu tasawuf ñi faatu li ñuy gën a bëgg mooy dellu ci adduna doonte wenn waxtu lañu fi am ndax ñu mën a def lu baax lu leen di jariñ bu ñu delloo kon yow mii dund war ngaa farlu ci sag dund bala moo wé tey sàmmonteeg sag sag sag biir tey wattu say cër ak say noyyi ndax noyyi gu nekk day mel ni wurus woo xam ni mën nga cee amee koom mu bari mu dul jeex ba faw te nga xam ni bàyyi ak noyyi mu dem ci lu dul topp yàlla subhanahu wa taala wala mu dem ci ak mooy yàlla subhanahu wa taala perte gu rëy la ëllëg del dundal sa waxtu ci naafila guddi ginnaaw faratay ak saraxe ak koor ci bis yi ñu sopp ak wirdu ak sikkar ak xalaat ginnaaw boo jàngee ba noppi te lépp looy def nga di ci yéene aw yiw ak di bégal julli ñi di leen defal aw yiw te wut dog boo saxal di ko sellal di ko nëbb nit ñi ndax lu ñu xam li ci ëpp du bari njariñ ëllëg imaamu xasaaliyu radiallahu taala anu nee ci atibru al masbuk abdullah ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma ak ñu bari ci ay mbokam ginaaw sayyidina radiyallahu ta'ala am nañu lu mat fukki at ak ñaar di ñaan yàlla subhanahu wa taala ngir mu wan leen ko ci ay nelaw ba ñu ko géntee daa mel ni ku sangu ba génn gàccoo aw sagar ñu laaj ko nan la sun boroom def ak yow mu ni leen ba ma jugee ci yéen ba léegi ñaata at la ñu wax ko ko mu ni leen booba ba léegi maa ngi ci ansaab xaw tuuti mahal ko bu masa borom jéglu toon su ko defee nu dolli nu dellu ci melow siyaare bàmmeel boo dee siyaar ko faatu da ngay taxaw ca kanamam xaw a tolloog ay tànkam wax lii assalaamu alayka diyaara xawmin muminin wa inna insha allahu bikum laaxiquun yarhamu llahu almustaqdimina minkum walmustaxirina minna antum lana farab wa nahnu lakum taba an nasallahu waxshatakum وأمن روعتكم وجعل الجنة ميعادا بيننا وبينكم اللهم رب هذه الأجساد البالية والعذاب النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني اللهم إنك تعلم عددهم ورحمتك أوسع منهم فاغفر لنا ولهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم دادي جانغ سورة الإخلاص ixlaas fukki yoon ak ina ataynaka al kawsara ak ayatul kursi lu ci nekk benn yoon yéene ko tuyaaba ja bu fekkee ko yaakaar ki moom barke la nga deltu ca gannaawam jublu penku ñaan yàlla subhanahu wa taala ci barkeem mu faj say aajo te nga ñaanal ko ak njéggal ak yërmande ak ngërëmul yàlla subhanahu wa taala ñu bari ci borom xam-xam yi nee nañu ku siyaare nit ku baax wax lii muy allahuma inni as'aluka بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنبيائك وأصفيائك وصهيب وصهيب وحمار بن ياسر وعمران بن حسين وطيفور بن عيسى وعبد الله بن مبارك وبحق وليها صدريه أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وتسلم لو نيان سونو بوروم dana ko nangu boo demee ci ay armeer ngay teewlu bañ def sam xel ci ku dem ci ay armeel wax lii sunu boroom dana ko bindal limu ña fa nekk ñépp ci tuyaaba mi ngi nii allahuma rabbaha sihil l wal ajsaadi l baaliya wal hisaami naxira lati xarajat min addunya wa hiya bika muminatun adxil alayha rawhan minka wa salaaman minni wax nañu ci ay nettali boo ko danañu la bindal limu ñi masa faatu ak ñiy bëgg faatu ci aw yiw lii mooy njot nit li koy jariñ mooy li mu jëf ci ak dundam waaye bu faatoo li ñu ko defal ci lu baax dana ca jot moo tax di def lu baax di ko yaatu baax na lool bokk na ci li ñuy wax njot te mooy loo xam ni boo ko ko defalee du tàbbi sawara loolu am na ay xeet bokk na ca laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi juróom ñaar fukki junni yoon yoo xam ni doo ci boole sallallahu taala alay bi ali wa sabi wa sabi wa sallama ci ludul yoon wu njëkk wa doo ko dog itam wala boo ko dogee nga tàmbuliwaat ko doonte noppi gu yàgg la bokk na ci bismillahi rahmaan rahim fukki junni ak ñaar ginnaaw boo waxee ahonsu billahi min asheytaan rajim ndax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na ku ko def jënn na boppam dana am lu wote ci asamaan si ak suuf si ni diw sunu borom goreel na ko képp ku mu ameloon xaq na ko jël ci man sayxu ahmad ibnu husayn radiallahu taala anhu nee na amoon na wali wu mag wu nekkoon Marok loolu moo doonoon wirdam bis bu set bokk na ci li musle ci mbugal li looy julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama amna jigen ju masafatu am ko gént mu sonn lool ba mu xëyee wax ko alxasanul basriyu radiallahu taala anhu ginnaaw loolu alxasanu basriyu radiallahu taala anhu gént ko mu nekk ajjana mu laaj ko lu la fi andi mu ne ko benn waaye moo romb ci sunuy armeel fekk nuy juróomi junni ak juróom benn fukki junni mu julli ci yonante bi sallallahu bi alayhi wa sallam benn yoon yéene nu tuyaa baja ñu jéggal nu nun ñëpp ci barkeb julli googa am na ko masa a faatu am ku ko gént laaj ko noo def ak ñaari malaaka mu ni ko damaa gis ku rafet xeeñ lu neex mu ñëw dox sama digg ak ñoom ma ni ko yaay kan mu ni ma sa boroom moo ma bindoon ci julli yi ngay julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa bi alihi wa sahbi wa sallama digal dimbule ci wépp tiis bari na lool ay nit ñu baax ñoo xam ni bañu ñu leen gisee ciy nelaw dañoo wax ni sunu boroom mu ngi leen jéggale ci bëril julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi am na koo xam ni bañu ko laajee dani malaaka yi alayhim salaam salaam ba xoolee samay bakkaar dañoo fekk li ma julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu bàyyi ma ma dugg àjjana bokk na ci njot ñeen fukki lexlaas bokk na ci jàng julli gi junni yoon moo xam kuy dund la wala da nga koy defal ku faatu allahuma salli ala sayidina mouhamadin salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa hadada kamalihi habibika njariñi ha coora a amna lu mat fukki mbir ak ñaar yoo xam ni képp ku ko man sopp nañu bu bisub ansoro a yegsee nga def leen ca ba ca njëkk mooy woor bis bi ak julli ci ñeenti rakka ak jokk ci mbokk ak siyaar ci borom xam-xam ak seeti ci ku tawat ak tus ngelu ak raay bopp jirim te mooy ku amul baay te doon gone ak saraxe ci ak sangu ak yaatal sa njaboot ci lekk ak naan ak leewi say we ak jàng sóoratul ixlaas junni yoon ñaan gi ku ko jàng ci guddi gi njëkk ci at mi saytaane du ko jige mi ngi nii allahuma antal abadiyul xadimul xayyul xayum alkarimul xannaanul mannaan وهذه السنة الجديدة أسألك فيها الحسمة من الشيطان الرجيم وأهوانه والحون على هذه النفس الأمارة بالسوء واستغالي بما يخربني إليك يا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وأستكفيك مؤنتها وشغلها